di ñaan yàlla mi ñu may ci kartanam ak ci sañsañam sañam ba ñu fekkeeti tey yal na yàlla dolli ndimbalam ci ñun ak yéen dolli kaaraangeem ci ñun ak yéen dolli jàmmalam ak wërsëgalam ci ñun ak yéen boole may ñu jàmm juñ xam ne jàmm la xettali ñi nga xam ne ñoo nekk ci lali hôpitaux yi di feebar wala sax ñi di soxale yalla safara len bismi shafi ñi nek ci kasso yi ciabi fete len gannaaw te ku sa ciabi fete la bir ñoo yalla yalla Cikat tijji leen ci xat-xat yañ nek ta buñ fa duggati ña fa dugguton yalla buñ fa duggati ñi nga xamé tamit ñi ngi tak seen bagage yi bëgg tukki rawat rawatina tukki mi hepp solo ci tukki yi muy siyaara ji sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam. ak aju neega yalla bu mag bi ñooña yàlla sàmmu leen xaar leen ba ñu dem ci jàmmu ñëw ci jàmm yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def xam naa sama ñaan gi ñaan lay taayal rek lay doon waaye yonantu bi moo leen ñaanaloon garante leen ne kii xaj yi mi ngi ci garanti ak yàlla ci demam ak ñëwam yëpp yàlla koy wattu dana ko wattu lim bàyyi gannaaw ba du yàqu dana ko wattu tamit ci jëmmam wattu ko ci am amam ba du yàqule te yooyu yëpp laaw lu jara ñaan la yooyu yëpp nag bu la dalee ñaan gu nangu rek la ba tey ndax xamoo nu la ko yàlla fanqalee eh, yooyu yëpp mënoon na laa ñàkk sa fan gàtt mënoon na laa ñàkk a dal sa xaj ñàkk nangu nangu noon na laa ñàkk dal sa wër sa xat mënoon na laa ñàkk a dal leneen dal la kon bu la ko yàlla dalalee tamit terewut la yonent bi waxoon moom dëgg la waaye yàlla da nangoo. garantale la ko ñu wuuteeg ni ko yaakaaree xoon xaj moomu nag tey di suñu ñaareeli jotaay ci moom te xam nga démb rek maa ngi ci woon ak yow dafa bëri ay njariñ bari ay bit yu màgg yoo xam ne yàlla dëxëñ na ko ci ba tax mu sant ko ba tax waqat shara allahu tabaraka wa taala alxajja li xikamin saamiyatin wa ahdaafin jalilatin minha ijtimaaul muslimina fi kulli aamin wa fi athari buqaatin wa ashrafi makaanin wa qad jaau min kulli fajjin amiqin mu mel ni aj daal ay ëhdaafam dafa bari muy ay bitam waaye ay njariñam yi mu làmboo nit man cee teg bët dafa bari waye timit bëri na ci yo xam timit nit mana butcha gut ci atek beut waye bo légee bu ci beut rek dana xam ne lu bëri njariñ la dama la ci wax nak yenn ci njariñ yi nga xam ne nit mana ci tek beut mu nek shay'un un malmuus man ne nga ci tek sa loxo lal ko léegi bi ci njëkk ci njariñ yoya jappal ne aj dal moy kongare bi gën mag bi yalla jagleel julit ñi ñi kongare bo xam ne nyom kese ñoo ko am waaye keneen ku dul jullit amul congrès bu day ni moom ndax ab jullit yàlla da ko mayoon ay audience amoon na juróomi audience ci bis bi yoo xam ne nañu daje seen kilifa di seen ilimaan ñoom ci seen bopp dajee mën a waxtaanee ci seen i mbir di ko defee ci kenn ci néegu yàlla yi gannaaw si gi yàlla may leen audience su semaine muy jullit juma ña sori woon ak ña tukki woon ak ñu nekkoon ci yenn liggéey ak soxla yëpp bàyyi ko war a ñëw daje yeneen yeneen yeneen ñaari audience yi mi ngi am ci at mi muy idul fitri ak idul adha mu xam dana leen dal ñi daje ci àll ba wala daje ci jàkka wala juma yi mbooloo mu bari ci ay nit daje fa su ko defee tamit loolu lépp ay occasion la ñu man cee xamante occasion la ña ca xamante woon man caa gisante xamante day indi jëflante jëflante day indi jëriñante waaye nag yooyu yëpp nag congrès ba ca gën a mag mooy ñoom jullit ñooñu ay millions yi millions dajee ci benn dëkk àndandoor ñoom ñëpp niroo genn jaamu gu ñuy def àndandoor ñoom ñëpp niroo ay koddaay ñu sol ca làmbaay ya muy seeni harmal ñi bokku genn guñu yëkëté ndor ci la bayka labayka la bayka bokku benn kaaba gu wër buñ ca kat kat lo ak lo ci dox digënté safa ak marwa guñ nirale buñ ca ko dem minan fran ci tanta yaag ron basa yaag mat la ya buñ ca ko départ ñom ñëpp dem arafa yendu fa julli fa subarak takusan tàkkusaan wàññi len benn bu ne ñaari rakkaa jant sooyee leen fa duñ fa jullee timis àndandoorati ñoom ñëpp ñëw mus musdalifa wàcc fa julli fa timis ak gexe boole leen wàññi gexe ga waaye timis moom kenn du ko wàññi for fa juróom ñaari xeer suñ fa mënee fanaan a gën ba bër set ngi julli suba dem masharul haram ñaan fa àndati fa dem minan juróom-ñaari xeer yooya ñu foroon ñu sànni ko par benn di wax laaw allahu akbar ca jamratul aqaba bàyyeekoo waat fa ñoom ñoom ndoor ñëw màkkatal mukarrama war a def tawaaful ifaada ñi bokkale ko ndoor buñ ca bàyyeekoo ñi nga xam ne defuñu woon tamatoo duñ defaat safa marwa ña doon def tamatoo nag faw ñu defaat safa ak marwa doora nag watu su ko defee nag sangu. sol seen yére yañ xamoon ci Sénégal gaaw dem Minan man faa fanaan yi bu ñu xëyee for ñaar fukki xeer ak benn sànni ko ci juróom ci ñetti jamra yi fii juróom-ñaar fii juróom-ñaar ñibbiwaat tëdd bu ci ëllëg saa ngi defaat noona gannaaw nag subaar lay doon bu ca gannaaw ëllëg saa ngi defaat noona seen aj jeex tàkk loola ko ngarale bu mag ci dajee googa ñu dajee ci place yu wuté yi dañu am congrès bo xamna ñang koy dajé madinatul munawara dañuy siyaare ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam. bi congrès ñing ngi koy dajee makkatal mukarram yi congrès ñang koy dajé minan yi congrès ñang koy dajé musdalifa yi ñing koy dajé arafa bu mujj rendez-vous bi ñi door ko dajé nak ci minan ci ñetti fan yo xamné danaka lek rek ak dem sànn ngi jamra amuñu benn jafe-jafe buñ fay nekké boobu kongare dana indi ñi diisoo boobu kongare diisoo dana indi xamante ña xamantewutoon dana indi tamit ña xamante woon nammante koo fa relation bu mag boobu muy fasu jariñante yu rëy rëy dana ci indi ñi ci jariñante ci diggante ay daw la ci ci essence wante ci wàllu xam-xam ñii tamit ñi def essence wante ci wàllu am-am ñii tamit def essence wante ci wàllu kartan yeneen ak yeneen yu cay mën a juddoo kenn xamut ni mu tollu ak ci ay xel ak i xelaat kenn ku ci nekk man caa jariñ sa morom moo tax yàlla ba mu wax mu tëgg njariñ la ne li yashhadu manafia lahum bii nag ma tuddagum benn manfaa la ci manafia yooyu nga xam ne tuddu naa ko ci waaye ñaareel bi gis nga àcc moo gën a gaaw ci jàngale lu ñuy tuddee tolloo muy parité parité gi ñuy coow lu ci bëree bëree bari naan député bu góor bu jigéen mënu koo regle ndax doo woowa tànnin yàgg naa la wax lislaam xamu ko su ko defee tamit nañ nañ nañu tànn nangam ak nangam yooyu tànnin xamuñ ko mais mu saawaat gi nga xam ne moo gën a gaaw ci ko gën a mën a jàngale daal mooy acc fofa ngay gis musawat diggante alqani ak faqir ki milliardaire la ki amul 1000 francs taxaw ci peggam ñi bokku yére yo xamné yeen sol ñoo am prix bu muy jar kenn ko ne sa prix ba nga sol passé wu 5000 francs passé wu 10000 francs bi nga do ko bi nga yo ko nga gis ko fe ku ñul kuk dend ak tal ñom ñaar ñepp ñi bokku ben baat bu ñu yëkëté ndor ci labbayka allahumma labbayka nga gis al-hakim, waye yu janibul mahkum hatte kat la di gis bu mak ki ku ñuy hatte la ñom ñaar ñepp ñi bokk dendandoor bokku fuñ tok bokku nuñ tabarakallah bo len bo len ñom ku ñak ak ki homal ki ñuul ak ki wex ki xamat ki rir ki ham sañ-sañ ak ki ko hamut borom ndomba tànk beeg ki ko néew ñoom ñépp ñi saxoo di jaamu benn borom torox lu jëm ci moom boole ko di wër genn kaaba yooyu yëpp doo ca xàmmee borom xalal ak borom daraja doo ca xàmmee buur beeg ña mu buuru yooyu yëpp moo gën a gaaw ci musaawaat bokk na ca njariñ ya timit foofu ñi dajee ci amaakinul muqaddasa yi danañ ci def maanaam ay mushaahadat al مشاهدات المعالم المباركة والإقامة مدة في هذه الأماكن التي أشرقت فيها شمس الإسلام ونزل فيها الوحي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كم تاي بوكونا سي نجارين ني دوندال جي ني دي گنا دالالات سوني خيل مي بو في في گا واتشي ولا گا واتشي المنورة ba yàlla may la sa bët yi tege ci jàkkaay sayduna muhammad yeeg or biñ ko liggéeyee ca porte poto ya nga avancé demat dem ba gis xabro mbaak nañ ko liggéeyee or or biñ ko jëlee teg ko ci kawam nga gis sayduna aboubacar ak sayduna omar nga gis jàkkaay yonentu bi sallallahu alayhi ay million yi million yi doomu aadama man faa dajee ci biir ak ci biti ànd ak dal gi ñuy dalak teey gi ñuy teey bëgg gi ñuy bëgg yàlla ak léeg-léeg nga gis nit di jooy te kenn dóorut ko léeg-léeg nga gis ki ni ci teqalikoom ak sagoom te lépp nga fa kii nga gis mi nga xam lu dul jeex ci àdduna te gisatut ko yooyu yëpp sa xel mi da ko dundal dana dal ne daal dëkk lislaam ji ma gëmoon mu tere maa nelaw may quran di fajar di wax lu baax di xiifa ka mar ci weeru koor wi te lislaam moomu fii la juddoo ñi bàmbaane ko fi mu màggee fi dëgg-dëgg ba ma ñëwee ba gis place bi dëgg-dëgg la ma gëmoon daal mérito na ak place bi foofa sax da nga dem soo nekkul ku complexe da nga dem ba xeeb tubaab yi xeeb américain yi yëg ne naar yi ñoo xeeb seen bopp waaye koom-koom bi leen yàlla jox maanaam américain yi amuñu ko ci pétrole tali yu baax ya ñu am marbu bu rafet bi ñu am liggéey bu rafet bi ñu liggéey seen réew yi loola amul Amérique amul Europe amul ci yeneen tamit ak continent yi ci àdduna bi su boobaa tamit nga xam ne lii barke bu màggee nii kenn mayut leen ko ku dul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama da nga dundal koon sa xol dana dund waaye sa bakkan dana dund ci dal say bëtt mi dana dund ci gis place yu tedd yu sell yooya nga xam ne foofa rek nga ko mën a gisee soo ko gisatu dootoo ko gisati waaye nag araab yi benn feebar lañu am mooy ñàkk gëm seen bopp bo laké angale sax ñi am complexe ci yow suñ na amiri nga baye ko ñi gëna baxal sab dal fonk la yëkëti la yoyo yëpp dañu xamul li leen yalla défal waye li leen yalla défal buñ ko xamoon gëm ko top ko américain daw ci seen kaw européen daw ci seen kaw ndax li ñi am ñom amuñu genn wàll ga ndax l'islam la yalla jaglél nak ño hëpp xam-xam ci ñu dul ñom la yalla jaglél ño hëpp am am ci ñu dul li tax ñoom la yàlla jagleel ñoo ëpp kartan ci ñu dul ñoom lu tax ñoo ëpp kartan xeet yëpp boo leen jëloon tey kenn ku ne lam gëm yonentu yàlla Muhammad moo ci ëpp njaboot ñaari milliards ak genn wàll gu teg moom kenn moo ko ci am ñeneen ñi ci des boo leen xaajee ñi duñ man milliard ñi duñ man milliard ak genn wàll te nag mbooloo kartan la aljamaatu rahma su ko defee tamit ñaareel bi ñun la yàlla jox xalal ji ndax jullit ñi rek la yàlla jagleel pétrole ci arabie saoudite yeneen réew yaag yépp pétrole baa ngay sottee ko mel ni ay teen wala mel ni ay robinet yuy xelli loola tamit kon ñoo fépp xalal am pétrole yaa am xalal bi ci tegu timit ñun la yàlla jox xam-xam bi ndax ñun rek la yàlla jël téere boo xam ne mo moo lay xamal la passé woon di la xamal li teew boo xamee problème mu àtte la moo lay xamal ba ma ngay jëlee sa logement ci aljana téere boo xamee noonu xam-xam yonantu boo xamee xam-xam ni moom jàngale ko loola dama ne weneen xeet wala weneen mbooloo bu ko am amul kon dem ca place yooya dana tax sa dund eh, sa sa xol dund sa rooxu dund sa bët di dund coono boo mën a daj ci ak xaj gi bu sa jëmmu tegee ca xabru sayyiduna muhammad ba rek nga fàtte lépp bu sa jëmmu tegee ca jàkkaam ju tedd ju yaatu jooja nga xam ne ay kilomètres kilomètres la ci yaatuwaay ay kilomètres kilomètres la ci gudduñaay su boobaa nga xam ne daal sa bët dana faté lola lepp yow mi may déglu dëkk bi nga gëna min ci dëkk bu mak so yebo nga ne ma kër ma jibel la xam wala nga ne ma non do fan la xam so jëloon jakka yonentu bi nga samp ko ci digg dëkk ba paraska jakka ji lek dëkk bi yépp ko nga samp ko lew na jëm manam garas ñoro jakka ji dana dem ba passé liko doré fi fii yi lew na ji nek ba ca garas bi mujj bu kawlax ba gudd ñaayu jàkka ji ëpp na ko boo jëlee yaatuwaayam bi nag dana la bëgg a ca garas dakar bu bees ba kon nga xam ne gudd ñaayu jàkka ji ak ba kon daanaka mi ngi bëgg a lekk kawlax jàkka gi tol noona yàlla muhammad dog moo ko am nga boo demee mar bu barek da nga xéem yàlla ci alal ju def loola lamp ya nekk ca biir moket yaat yooyu yëpp nag maa koy wax rek matière la te doomu aadama yi gëm matière ci jamono jamonoy matière lañuy dundu su boba nak bu ci sa beut feesalee lola te lepp yalla lal ak l'islam ak sel ak mbaax bi yonantu bi maye ko doto xolati état ci qusma ñap ya nek amérique seen maanaam meuble yak yenen ya ci aju ya nek europe ak yenen ya ci aju yeb da nga xam li yalla jox l'islam joxut ko kenn joxut ko ñenn li dess rek nak ñooñ l'islam nañ gëm sen bop ñettelu ndariñ bi ak tagatu la ci ñeme coono makka liggéey ba fa nekk ku ca xas tàggatu liggéey boo jëlati rek mu xoyof ci yow dana tax nga nga miin coono ci tukki boo tukkee tee dootoo ko yëgati yow baykat bi ñëw demoon makka dem tool dana mujj xoyof ci yow yow commerçant bi dem makka ak liggéey ya fa ne dem siin wala dubaay wala yendu sa place di jaay dana xoyof ci yow yow entrepreneur bi boo ca bàyyeekoo coono ya nga cay jëlee jël maanaam euh, gañe benn sànce di ko tabax ci ay immeuble dana mujj xoyof ci yow waaye da nga ca jëlee tamit tàggat sa bopp ci naafi la ndax foofa nag loo euh, lekk-lekk ndigg ci julli boo demee da ngay gën a bëri loo julli heure bu nekk yaa ngi gis ñoo xam ne buñ xëyee fajar lañuy ñuy a yeewu buñ demee wër kaaba gi euh, ndax foofa wër fa kaaba gi moo xëpp yool julli fa yow mii saa bees saa bees nag mooy ku fa dëkku rekk waaye yow ma fa dëkk nag bëri looy naafi la moo xëpp doole ci yow bëri looy wër kaaba ga su boobaa nag bëri gi ngay bëri wër kaaba ga ci naafi la bëri gi ngay bëri allahu akbar asalaamualeykum ci naafi la day dem nga tàggatu ca ba ñëw fii naafi la guddi gi yëpp day mujj xoyaf maanaam ci yow eh, yooyu yëpp yaa ngi ko ciy jàngee moo tax danga gis ñoo xam ne fajar lañuy ñuy yeewu dem dem dem ay côté 4 heures ndax foofu fajar bay gaaw a xaat buñ demee wër kaaba gi ba paré ñu dora salatu ñu julli buñ paré wëraat kaaba gi dora dem nak ñibi seen kër fexé ndik dalu tuti tuuti buñ demee ba côté 1 heure et midi yoy rek ñu tak seen bagage yu baal li ñuy añee buñ demee julli fatu subar bu ñu ba avant ñu julli ñu wër kaaba gi buñ julé paré wëraat di julli di nafilay jangal quran wëru ci cëna yu tedd yoya mu jàkkaarloo kaaba gi nga xam ne boo koy xool rek wëroo defoo dara yàlla di la bindal yiw yonent bi ne téeméeri yiw ak ñaar fukk ñoo fay wàcc par bis su ko defee nag juróom-benn fukk yëpp wala téeméeri yiw ak ñeen fukk juróom fukk yëpp yàlla nga ko jox ñooy wër ñeen fukk ya ñooy julli yeneen ñaa maanaam ñaar fukk ya ñi nga xam ne ñoo koy xool julli ñu wëruñu kon nga xamne ne kon kaaba ga yi wu nga ca wu reey rëy woo xam ne nga ko jaglel nya fa nek di xol rek nga boole xol ak wër am ñaari yiw nga boole wër nga boole xol ak julli am ñaari yiw nga xol rek wëroo julli wo yalla bindal la yiw ca kaaba gu tedd goga afa nga julli takusan gis ño xamne dañu danañ wëraat buñ paré julli takusan ñen ñan nak ndaysan fasé fasé ñur do jakarlo kaaba gi di jang salatul fatihi ñii tim seeni qasaid masalikul jinan tasawudu sigar di ko fa jang ñi tim hisbul bahri ñi tim musabaatul ashri ñi tim Yaman man afharal jamila ñi tim lanen nek diko di ko place yoy nga xam so soo tank ba fof nga koy fekk lepp foofa la ko ah, su ko defee tamit nag ah, bo demee nga wat tuti rek bo téla ñëwaat afa ngay julli nga warat kaaba gi timis bo paré warat kaaba gi nek fa di nafila ka julli ba gexe jot nga nga nga nga wër kaaba nga julli ba paré wuraat kaaba gi julli fa say rakkaa ba def fa say safa ak witar doora dem ndax ben raka bo julli fofa téeméeri junne raka lay remplacer motax do dem diko julli sa hôtel ba sa julli yépp ci navi lay sa julli yépp ci farata yi da ngay profito diko julle ja ca kaabatal musarafa ga ben raka témir junay raka lay remplacer motax bo fa defone wër nga julli fa sa mbolém juroomi julli dana remplacer presque ku dundu ci julli lu ëpp ñeen fukki hat ci senegal wala ci meneen rew su boobaa kon lu mel non ko ko yalla jox doo ko foye boo ca ko nak tagatu goga nga tagatu won ca moo lay may nafila ko yef ci yaw moo lay may jang alquran yef ci yaw manam dutul disati moo lay may dundal guddigi wo yef ci yaw waye dang ci jele tamit geneen njariñ moy dang ca jange tumuranke teqali koog sa njabol ndax xam nga leg leg dana am ño xamni bëri nañ lu ñu war a doxi waaye bëgg njaboot rek moo tax mënuñoo dem fet na bëgg seeni doom suñ demee wàcc wàcc nañ rek doom yooyu ñëw langaamu seen kaw ñu xenu leen su ko defee topp la papa papa yaay ñi naan sama yaay sama yaay ñëw na laxasu la ku ñii sa bopp bi ñii yéeg sa tànk yi ñii tëdd ci sa biir bi nga kontaan ca loola ba tax na saa yoo bëggee tukki bu sa xel dajee sa njaboot gi rek nga mujji maanaam fomm waaye nag dem gi nga dem màkka tofu lu mat wer wan gannaaw sa soxna yi wan gannaaw sa njabot gi wan gannaaw sa rew mi lol dana ci demé ba nga xamné ne tukki dana mujjii woyaf ci yow sa yo amé bi rek dem Dubai, wala nga dem sin wala nga dem italy du ko defé dan la ko mëna remplacer waye dang ci timi yëkëti ko hitte ci yulli halal def ko ci yoonu yalla ta do ci jublu lu dul ngërmande yalla gis nga nit ki lum nay nay nay bu demee makka rek di xol ña fa nek nañuy doxalé ak nañuy dimbalante su boba rek dang fa jógee ko rek commencé tabe ndax li nga nay ku la koy jox bu yagge rek nga tabé ca sa sa réal yi nga nay ca lol nga dajee ku la ko mëna jox nga nan buma ma añ dana ma coûter 5000 francs wa gi ne la añ baangi ma la nga ne li dana ma dik 3000 francs ñu la ngi ni dara war lu tiya nga dem arafa ñi jël bopom yi di sanni wante ak banana ak orange bi ak ak manam boisson yi da ngay da nga xewlu ba bayiko fa su boba loola nga nayon ba mëno ko jox sa bop ñi fard la ko jox bo ca baye ko dang ci jëlé ak tabé go xamné dang ko mëna a jox sa bop man ko jox timit manam say morom muy ay njariñ yu bëré bëré bëré bëri yo xamé na ni mom aj makka manam lambo nako ci ay njariñ yoyu matul la nak lenn rek la ci njariñal biti mo njariñal biti yi nga xamné yow mi may wax dima man nga ci tek manam sa baram tay nag ma wax la njëriñ yi nga xamne mënu tek sa baram yonantu bi moo ñu ko jangal suma la ko waxe rek nga tak ko dégg ko bu baax wad na ci yalla lo defon ci makka ci halal dang ko xeb coono bo ci sonnon dang ko xeb ñukki ñukki go ci sonnon dang ko xeb ndax lila yalla yàlla ci walu wa al hajju jaamu yalla la bo xamne jaamu yalla ak alal la jaamu yalla ak jëbu waye alal du ko fekke sa jëm du ko fekke moo tax pay waram reuy njari ñam timit nek lu mat sëkk dagale mbolim julit ñi julli njëriñam nag ci yaw la hem gis ko hor weeru kor njariñ la ci yaw la hem haj makka nak njariñ la ni mu la dajee ni la dagale mbolim julit ñi xolal ma tay yaw mi di dem makka ak dajee gi ngi fay dajeeg ci aduna bi ño xamne bokku leni lang degantu len ci ay couleur waye sen roh ya déggante ngeen mujj di jariñante xolal ma tay Arabie Saoudi mi nga xamne di màkkatal al karama ak muddatu munawara nga xamne lu fa nit def defal nga ko aduna bi yeb ñaata milliard lañuy bénéfice wu ci hajj lola njariñ ken xamut nu mu tollu ba tax na ñoom li leen yonantu bi defal deug deug buñ ko doon delloo 100% ki julit ni ben julit du xif ben julit du mar ben julit manam du rafle ben julit du fi nekk naan damaa soxla jàkka ñi lay dugal ci jàkkaay ay projet bindal lii remplir lii bu pare ñu defal la jàkkaay benn sooroo rak nangam ak nangam suñ mag ñi bi ñu nekk jàkkaay projet amut te koo ca dem jàkka ja mu tabax kenn xamut nu mu toll ay ñeenti sooroo la juróom-benni sooroo la nangami sooroo la ca nekk te jàkkaay rek lu waay am lislaam ñor la nga def ko ci la te jàkka yañ fi bàyyi ñoo gën téeméeri junne yoon gën a taaru gën a rafet gën a yanji gën a dund jàkkaay procès yi fi nekk tey kon nga xam ne def def ci yàlla kenn xamut tabaarakallaahu ni mu dayoo ndax nga gis jàkkaay procès yoo xam ne dëkkam la mu rëy lool ñu defal leen jàkka yoo xam ne nii soo moytuwul boo sujjootee sa tànk yi nekk ca biti ah ñu tuddee ko juma wala yooya kon dama ne leen li leen yonantu bi defal ci barkeeb ñi xamee ko ci barkeeb yonantu bi di ay milliards yu ñuy gañe waat naa ci yàlla bu ñu ko delloon ci julli ñi kenn du xiif kenn du mar kenn du rafle benn guerre du fi nekk tamit yéeféer yeeg noonu lislaam yi di fontoo jullit ñi di dóori ay bomb kenn ñu mut ca yëkkati benn kàddu wax ko ca ngir ragal ñeneen ña yeneen yi ci aaju yooyu yëpp li ko noon dara du ci mën a am kon jullit ñi yàlla nañ gëm seen boppu te araab yi jiitu ci waa makkatal mu karama jiitu ci nekk exemplaire waaye nekk tamit modèle ndax nit ñëpp mën a tegu ci seen gannaaw kon njariñ yi nga xamne dafa ko lambo waxna la ko bëri na njariñal li nga xamne nak mu yaw dang koy yek bu yowmal qiyam nga koy door gis la lay wax haj moy xaj fuqara wi ak masakin yi ak duafa wi parce que gaddu sa jasi dem di xeexi yombut ñëpp mënuñu ko waye nak yaw bo demee haji rek jihad nga sa yo aje mel nga ni ku fekke won xare badar mel nga ni ku fekke won xare uhud di bojjante ay jaasi di jame ñi lay jam moo tax xasan ibnu ali moo wax ne anna rajulan jaa ila nabii sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inni jubbaanun wa inni daifun fa qaala haluma ila jihadin la shawkata fihi waaju dafa ñëw ci yonantu bi ne ne ci man laa lay wax yaa wax ne nañ xare ji man ku ragal laa sama fit bi ñemewul xare toog ñi lay rey nga bayyi sa soxna sa njabot gi gannaaw sama fit mënut lola ñaarel bi tamit même bu ko sama fit wi ñemee won daif dama lompañ mënuma dara yonentu bi ne ko kay ma la jihad ju amul dik, jihad jo xamne amul ben danse moy demal nga haji rek kon yegal nga ne kep ku ta jihad bu la yalla maye nga haji nga yek nga ñak yek jihad nga kon lola jihad gu màgg a la bi ci tegu tamit nim nekké jihad taxaw taxawayu jihad ni la taxaw taxawaayu jihaad goo xam ne fa matale ci ñëpp ndax xam nga jihaad gële yàlla santaane ci alquran ña ko tax a jug mooy ñi man ki mënut génn na ñi ko tax a jug mooy góor ñi kuy jigéen génn ki ko tax a jug mooy mag kuy xale génn nga ku ko tax a jug mooy ko xam kartan ko xamul kartan génn nga mais jihaati aj mag mën na ko xale mën na ko góor mën na ko jigéen mën na ko ki xam mën na ko ki ñàkk mën na ko ki am karta nag ku lompañ yëpp mën nañu mën nañ koo def moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci hadis boo xam abi hurayra rek moo ko indi mun a jihaadul kabiri wa daif wal mar'a alhajju imaamu nasaa yi moo génne xadiis boobu boo jëlee tamit moom xaj euh, lépp dafay tënku rek ci yéene ak baleen jëfi yàlla yi te boo jëlee xaj mooy moo jël deuxième deuxième rang ci jaamu yàlla ben sahabi mo ñëw ci yonantu bi ne ko jëf yi ñi jëfal yàlla dafa bari bu ci gën ayul a'mal afdalu qal imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha qala summa hajjun mabrur bukhari ak muslim yeb depo nañ ñi indi hadith bobu ben way mo ñëw ci yonantu bi ne ko waw abi hurayra mo solo hadith bi ne ko jëf yi ñi jëfal yàlla bu ci gën jullee ngi fi xora ngi fi jàngal qur'an joxe asaka aj màkka bi ne ko li ci gëm lépp moy gëm yàlla sa xol bi nga fexe ba gëm ci yàlla ba daana wax ne sax aboubacar gënee hut leen rakkaa yu bëri gënee hut leen alquran gënee hut leen xoor weeru koor ak nangam lim leen gëneel mooy maa waqara fi qalbihi te kooku mooy imaanun kon gëm yàlla loo xam solo la gannaaw bi nga gëmee yàlla mu wér nag mu ne ko ganaaw gëm yàlla lu ci tegu yonent bi ne ko xaj guñ nangu kon mbooleem jaami yàlla yi premier rang ki ko jël mooy gëm yàlla deuxième rang bi boo aja nak boole nga gëm yàlla boole nga aj ndax ku gëmul yalla du génnee halalam di jël sacrifice temps sonu ci di dem makaran ma ngay haji kon bo aja rek boole nga ñaar yef far haj guñ nangu nak moy haj go xam ne du ko jaxase sa xaj mburante amu ca sàccoo fenoo jëwoo xastewoo rambajo ñi ne haj guñ nangu ñi ngi koy xam gannaaw bi waji haj xaj ba ñew lam doon def ci lu baax lepp yokku safa namba muy lu bon lepp mu bayiko ba bàkkaar bu mu defati rek da koo rëcci waaye toogatul di xaar bàkkaar loola ku ko xas def rek ku toll foofa ci maqaama boobu rek na nga yëg ne waliyu nga te foofa ku fa toll tamit nga yëg nga ñàkk a yëg tamit saaj ga sa jaamu yàlla ga yàlla nangu na ko ndax loolu rek lañ doon defee jaamu yàlla moo tax yonent bi daan wax sallallahu alayhi wa sallam man xajja walam yarfus walam yafsuq rajaaka yawmin waladathu ummuhu boobu hadis gis nga ko tamit buxaari yu muslim yëpp indi nañ ko mu ne képp koo xam ne xaj nga ba nga xajee waxoo waxi mbóorante jëfoo jëfi mbóorante du jëf ju bon su boobaa set nga ci bàkkaar set wecci ba mel ni maanaam keroog ba nga juddoo ci sa yaay kon nga xam ne kon loola lu foor a foor la euh, moo taxoon Abdullah ibnu Amar ibnul Aas yi dafa ñëwoon ci yonent bi ba yàlla saxalee gëm yàlla ci xolam mu ñëw pour war a jaayante ak yonent bi ñëw fekk yonent bi tax mu ko tàllal say loxo jël loxo ya tek ko ci loxol yonantu bi ngëb ko ne ko nag damay sarta yonantu bi ne ko looy sarta mu ne ko damay sarta bala ma tuub sama bakkar yëpp yàlla jéggal ma ko yonantu bi ne ko tana xamoo ne amma alimta ana al islam yahdimu ma qablahu wa ana al hijrata tahdimu ma qablaha wa ana al hajja yahdimu ma qablahu rawahu muslim bam ne ko damay jaayante nak gannaaw si ga ma damay sarta bala ma meuna dugg ci l'islam dal samay bàkkaar yëpp yama ko yàlla jéggal yonentu bi ne ko xanaa xamoon ne lislaam day màbb la ko jiitu woon ci mbon yëpp loo bon bon bon boo tuubee dugg ci lislaam sa bàkkaar yëpp yàlla jéggal na la ko mu ne ko gàddaay boo ko defee bàyyee ko dëkk ngir rawale sa diine gàddaay yi dëgg-dëgg nag mooy gàddaay lii yàlla tere mu ëpp ci gàddaay yi ngee gàddaay saahir su boobaa li nga defoon ci lu bon lépp yàlla jéggal na la ko mu ne ko xaj tamit dafay màbbu lépp lu ko jiitu woon kon yow mii di xaj yi na yàlla bëggee nga xaj ko boo ko xajee sa bakkaar yi nga yep a def yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla toppatul la ci dara yëpp jégal na la ko kon xaj am na solo yooyu yëpp aj dafa koy jariñ beneen bi ki tegu tamit aj day dàq ñàkk soo ñàkkee nga dem xaji te yàlla tax insha allahu rabbi yàlla dana la jox koom-koom koom-koom nag lu bëree bëri la doylu sax koom-koom la boo xamoon ay milliards dem xaji yàlla mën naa def jël sa xol bi dugal ci doylu ndax danga gis lu la ëppale fuuf te faale wuñ seen am am ba ñoo xam ne tey buñ ne allahu akbar noddu waxtu wu mën a doon rek seen or ba jamaa ba ñuy jaay kenn du tëj ñëpp dañ koy wan gannaaw rek dem julli ji cey ku ko defoon Sandaga cey ku ko defoon marché asalem cey ku ko defoon marché marché police wala nga defoon ko marché Kaolack ba tabaarakallaahu da nga gis lu kenn mës ta gis waaye allahu akbar ku ko njëkk a dégg rek war nga sa gannaaw ñëpp say or beeg sa jamaa jeeg yëpp wan ko gannaaw kon yow mi jëloon sa xol bi def ci alal nga gis ñe la leen yàlla jox ci alal te defee wuñ ko soo fa bàyyee ko nga caa jàngee doylu yow mi am yow mi amul nag bala ngaa faj sa soxla ñëpp yëg ko boo fi bàyyeekoo ko yàlla dina la xoomalal ba man waxuma da nga xam lu ne gàññi de waaye loo soxlaati rek loolu dana faju te loolu rekk moo fi ne ki am alal ju jeex passé wut faj soxla mu faju rek ki am tamit tam ki amul dara boo soxlaa mu faju tamit rek amatu ñàkk na ñàkkatut waaye loolu boo ko bëggee nag dangay ngay toftale de boo demee rek umraal boo ca bàyyeekoo nga xaj wala nga xaj ba pare boo ca bàyyeekoo umra Sénégalais yëpp nag ñi dem ñu ci ëpp ñëpp noonu la ñuy def bul xaj rek boo xajee moom kenn du dàq ñàkk gi bul umra boo umra moom kenn du dàq ñàkk gi mais dangay ngay toft da ngay toggale ñaar yi eh, Abdullah nu Mas'ud moo ko wax mu ne maa jëlee ci yonantu bi wax ne taabiu bayna al xajji wal umra fa innahuma yunfiyaani al wa dunub kama yunfi al kiiru xabasal xadiid والذهب والفضة وليس للحجة للحجة المبرور دينغ ثواب إلى الجنة من من ما ديك يوم تبي وحنا دلين تفتل حج أو عمرة كو حج بباري عمرة ولا عند عمرة بباري حج نيوم نيار دنيلا داقل نيار دنيلا داقل نيك دنيلا داقل بكور كومني وينغنيول لوم قومات قومات ولا ورس ولا قالس سو جلي بيتخ def ko ci tilim ak weñ gu ñuul da koy dàq ca sasa betax mo gëna a gaaw ci dàq xomaat ak weñ gu ni betax di dàqee xomaat ak weñ gu ni ajak umra di dak ñak ni lay ajak umra di dàqee bàkkaar be hadis bay jeex mune walaysa lil hajjatil mabrura thawabun ilal janna haj guñ nangu daraam du payoram dul dee rek ñu la duggal hal janna yalla ñu ko yalla defal defal ko mbolem hujjaaj nga gis hadith hadis euh abdullah ibn masud moko ko ci yonantu bi imaamu tirmisi yu indi na ko naka noonu tamit maanaam mboolem ulama wu xadis yi d'accord nañ maanaam ci xadis boobu kon xam nga a loolu lu ama am solo la euh, bi ci tegu tamit ku jug takk say bagage gane ji rek di gan ki nga gane ji foo takkee sa bagage ko gane ji rek ganam nga muy sa njaatige ki takk bagaasam foo jëm mu ne màkka benn njaatige la am mooy yàlla ganag yàlla la waaw kon nag nit ki gën a nay ci nit ñi soo ko ganee jël sax mu teral la buru ba day na yàlla ku ko gane ji nak nak in daawhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum leen yàlla ganalee nag bokkut ak ñun ni ñuy ganalee suñ gan yi ñun ñi ku ci am gan togal ko lu neex utal ko boisson fala sa ngana la xam yalla nak ni muy gañalee xu jaaji ak ummaar yi mooy mu nangul leen seeni ñaan lepp lu ñaan yalla ko bi loolu moy boisson bi ñam bi nak moy misu wi mooy seen bàkkaar yëpp yàlla jéggal leen ko kon yéen xujaaj yi dégg sama kàddu maa ngi leen di ñaan waaye waaye bu ngeen demee bu leen ñu ca fàtte bu leen fàtte Sénégal bu leen fàtte seen i bokk bu leen fàtte seen i xarit képp ku dégg sama kàddu maa ngi koy ñaan war a xaji maa ngi koy ñaan bu ma fàtte ma dajee faak moom ak ma ñàkk faa dajeeg moom yëpp ci xam bu ma fa dajeeg moom bu ma fàttee bu ma fa dajee wut ak man bu ma fàtte yow muy déglu waxtaanu fajar yi daal maa ngi lay ñaan bindaaleel sama tur boo demee na nga ma ñaanalaaleel maa ngi lay ñaan na nga bindaaleel turu suñu waajur wi nga xam ne tamit moo ñu may occasion ba ngeen mën a dégg kàddu gi ni leen neexee ci jaww ji def ci alalam muy Seydi Mouhamadou Amine bindal turam ca kaw bindal ma ci suuf nag nga boole ñu nag loo ko ñaanal rek ñaanal ma ko nga ñaanal ko say mbokk ñaanal ko Sénégal ñaanal ko mboolem jullit ñi xam naa boo ma toppee suba ci waxtu yi ma wax la yeneen njëriñ yi nga xam ne tamit aj yi aj làmboo na ko njëriñal biir yi ak njëriñal biti yi tuddaloon naa la njëriñ yi nga mëna laal ci sa eh, sa loxo waye dina la tudd tuddal naa la tamit lenn ci ay njëriñ yo xamne mëno mëno ci laal sa loxo ëllëg àllaaxira rek nga ci mëna tek sa bëtt tek ci sa loxo yalla nga ko ci tek ma tek ko ci kep ko xamne mi ngi bëgg aji ci te def nangul ko ko mu tek ko ci ku ta aji yalla dembal ko bam aji mu tek ko ci kiko manut timit yalla hege ko maqaamaam ñako man mu ñu tek ko ci ñom ñu bokku texe واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما اصدقه ما الحمد لله رب العالمين